Sénélec société nationale d'électricité bu Sénégal ak 3MD énergie ñoo leen di may seen revue de presse dal ak jàmm yëglekaay yi dañu koy door rek Le Soleil mi nga xam ne rek xëy na tey jii du ñu amal ab décryptage jëmale ko ci eurobond Sénégal yéenekaay bi ne 3446 milliards nag daat nañ koy mobiliser ci diiru fukki at ak juróom lan moo waral nag taux ba na gën si nag muy gën di kawe rek Seydina Ndiaye di économiste nag moom ma ngay xam ne njariñ li nga xam ne rek eurobond am na ko ci biir yëglekaay bi nag ma ngay xam ne ni loolee yenn bor nga xam ne rek Sénégal amee na ko l'observateur xëy tey jii àddu jëmale ci scandale bi nga xam ne rek am na ci mine bi yéenekaay bi ne indien yi nga xam ne rek ñoo daan jëfandikoo ci lu jaarul yoon mine de manganèse bi nekkee ca Kenya ba ñoom teg nañu leen loxo mille tonnes yoo xam ne rek ci wàllu mine boobee lañ daan exporté bu ñu ko xaymaa mu toll ci fukki milliards ak juróom-ñeent résultat yi nga xam ne nag moo tukkee ci investigation yi waa dig amal nag moo daal di feeñal lépp nag yéenekaay bi di libération ne kaay ma wax la mbir yi naka la demee ak secret yi nga xam ne rek rek moo ca tënku ci biir ab mafia indien la boo xam ne rek ñoom ñoo doon caxat-caxatee manganèse bu Sénégal ca mine yooyee nga xam ne rek moo nekkee ci sud Kañaba ak ca Medina Fulbe nag ci anam bu jaarul yoon naka la ñu def nag ba yëf ya feeñ moo di ab deal boo xam ne rek dafa kalaatee mu toll ci dix-neuf virgule huit milliards ab entrepôt boo xam ne rek ña ngi ko sampoon ca na mu daal di am lu toll ci cent quarante conteneurs yoo xam ne rek dafa yeb manganèse ba fees dellu waroon koo yóbbu ca Chine lu jëm ci ni ñu daan jëfandikoo ci lu jaarul yoon loolee bi di ko yóbbu ca biti wàllum usurpation de fonction loolee lépp nag moom la enquête bi daal fësal beneenub scandale bi nga xam ne rek moom la source a xëyee ni ki tey jii di ko fësal bokk na ci li nga xam ne rek moo xew ca siège bu direction bu général Dakar Dem Dikk ñoom ñooñee nga xam ne rek courant la leen branchel ci lu jaarul ci yoon ay at a ngi nii nag branchement boo xam ne rek dirub ñeenti at Senelec mu ngi leen ko defal looloo waral ba yëglekaay bi courant boobee nag dirub ñeenti at a ngi nii ñuy lakk courant bi ci lu jaarul ci yoon ay ne Senelec ñoo daal di def gëstu gis mbuxum gi nga xam ne rek moo am ci wàllu wi ñu daal di dem débranche fil yi nag bàyyi leen ci lëndëm Walf Quotidien àddu jëmale tey jii nag ci critique yi nga xam ne rek moom la waa Pastef doon critiquer kii di Blair yéene kaay bi ne Diomaye dalal na ko moom Tony Blair waral ba mu xëy bind ci xëtam bu njëkk ne le passé présent de Pastef yéene kaay bi di l'info daal di koy feelu dellu siwaat ci audience boobee nga xam ne rek dox na ci diggante président bu Sénégal Diomaye Faye ak Tony Blair mii nga xam ne rek moom la waa Pastef doon ŋàññi démb yéenekaay bi ne démb moo doonoon seenub noon tey ji waa Pastef lalal nañ ko tapis rouge ba dalal ko ca palais présidentiel yéenekaay bi ne jamono ji waa Pastef ña ngay wàccu di lekkaat moom mi fi nekkoon na premier ministre britannique di Tony Blair nag démb la ko président Bassirou Diomaye Faye dalal ci ab audience boo xam ne rek dox na ci diggante ñoom ñaar ginnaaw bi nga xam ne rek Ousmane Sonko da koo yàgg tuumaal ne nag bokk na ci ñi daan xelal Macky Sall ay xalaat yu ñaaw tamit guerre ba am ci diggante Israël Irak bokk na ci ñu ko sookee yéenekaay bi nag daal di xam ne nii jamono ji daal rupture bi nga xam ne rek boobaak léegi ñu ngi koy gëmloo askanu Sénégal dafa mel ne dañu ko dum mooy jamono ji nag Guy Marius Sagna di xam ne ci biir yéglekaay bi di Le Quotidien ni moom daal jàpp leen ne soppi nañu président de la République soppi nañu premier ministre waaye système bi moom ba nëgëni si moo fi nekk dara soppeeku ci Les ko yéglekaay xëy tey ji nag ne ginnaaw coow lu juddu woon ca ba ñuy yeesal seeni bànqaas ñoom waa Parti démocratique sénégalais mu tollu ni nag ña ngay indi ay leeral ci mbirum Woré Sarr Sarr ne moom daal mosuñu koo tabb def ko présidente bu soxna yi moom moomee nag di Woré Sarr maître Abdoulaye Wade moo ko nommé woon nag ginnaaw départu Awa Diop bureau bi nga soxna yooyee nekk ca parti démocratique sénégalais te nga xam ne Fatou Sow moo leen jiite tey jii nag la ñu ko fas yéenee taxawal Sud Quotidien addu jëmale nag ci tabaski ak góorgóor li yëg ni ñu koy dundee yéene bi ne nag fi mu toll nii ci wutum xar la ñu nekk ginnaaw bi ministère de l' agriculture bi nag lépp jaar gis xar doon na doom bu góor ci ñoom ginnaaw bi ay fan rek desee ci tabaski bi jamono ji nag ci yaakaar la ñu daal di toll ñoom nag ña ngay xaar coggal gi daal di dugg si bàyyeekoo ca Mauritanie ak ca Mali ngir ñu mën a am xar ndax fi mu toll nii ci réew Sénégal ñii di yar xar ñoo fees dell ci dëkk bi di jaay ay xar yoo xam ne rek loxo du ko laal ndax njëg yu cher des ba tey ci wàllu tabaski boobee tribune yëglekaay xëy àddu jëmale ci coow li nga xam ne rek juddu na ci ñaari tabaski yi nga xam ne rek moom lañ nar a amal ci réew Sénégal yéenekaay bi ne coordination des musulmans du Sénégal daal jàpp nañu fukki fan ak juróom benn ci weeru juin waa Konakook ñoom di wootee ngir ñu amal tabaski fukki fan ak juróom ñaar ci weeru juin jeexale ak wàllu tàggat yaram sport ak mondial 2026 Mauritanie ak Sénégal dimanche ji lay doon bu 16h jotee yéenekaay bi ne Sénégal ak Mauritanie nag ñu amal derbi bu nar a metti ci ñeenteelu journée éliminatoire mondial atum 2026 ginnaaw bi ñu dalalee nag ñi nga xam ne ñoo di waa RD Congo ba témboo ak ñoom ndam demul ndam dëkkul Sénégal nag faaw rek mu gañee ngir mën a jëlaat place am stade yëglekaay ne jongante bi war a dox ci diggante Mauritanie ak Sénégal faaw rek Sénégal moom am ndam ci kaw Mauritanie jeexalee ak lu doy waar li nga xam ne rek moom la l'observateur xëyee niki tey jii mu bokk ci li nga xam ne rek moo xewoon ca Mbodiène di ab nit koo xam ne rek dañu koo fekk mu faatu ba noppi ñu daal di koy lakk yéenekaay bi ne ab casque bu moto nag fekk nañu ko ca barab ba ñu ko daal di fàtte fi mu toll nii nag askan wi ci diggante njàqare ak tiitaange la ñu nekk mbokk yi léegi noonu fas yëglekaay jàmm ak jàmm